jërë ngeen jëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb nu yotti nañ leen am kontaan ak mbégte comme ni leen koy defalee saa su ne mbokk yi léegi lañ leen dégtal combat bi nga xamante ne moo doxoon ci diggante Angleterre bu dóor dóoraat ak màjj màjj bu waalo combat bi gis ngeen nu mu demee Angleterre ñëw na ànd ak ay mbokkam màjj màjj ànd na ak ay mbokkam gis ngeen lépp lu nga xamante ne xew na ci làmb ji wolof daf ne tungu ne du teew ñuy natt ci ëkk Angleterre mi am ndam mu ngi nii Angleterre lay nuyu waaw ñoo ngi leen di fayoon waa wasaare di rafetlu liggéey bu rafet bi ngeen liggéey si làmb ji waaw sant yàlla bu baax nag parce que maaj mën naa ne mënuma ko yàlla ma may ndam si koom rek maa ngi sant yàlla bu baax a baax baax baax. combat bi ñaata weer nga ko préparé. waaw mën na deux mois nag wax dëgg yàlla dama daan entraîné presque di lundi au samedi quoi benn jour rek laa amoon repos quoi waaw mais maa ngi si sant yàlla bu baax bu ma amul woon wér du ma du noonu mais comme yàlla may na ma Euh, dans la semaine benn jour laa si amoon repos mooy dimanche waaw préparé nañ ko samay mbokk ak suma entraîneur coach Babacar Dione Kaare ak ñoom Cheikh Diouf ak Rick matin soir dama daan dem din di di contact di dem di la dem salle maanaam li war li li mbër war a def rek pour pour pour am doole mën a gagné si combat bi def naa ko combat bi dama def naa si xaalis bu bëri bëri bëri laa si def. waaw combat bi ku xam Angleterre xam ko muy liggéey ci dakaar dem dikk ak liggéey bi nan nga ko doon boole. waaw Dakar dem dikk euh, damay sawar di si wax parce que ñoom euh, dañ jëluñu ñuy liggéey rek ne ñi ay employé lañ dañuy dañ leen dañuy xool lu ñu neex ñu def doxalee kook ñoom. damay sant damay njëkkee sant bi dama koy sant njëkkee si Moussa Diop suñu DG moo jël moo xoo fekk mbëri comprendre nga gars yëpp ne mbër yi tegee leen à côté ñu naan mbër yi nii ak nii moom mu jël ñu dugal ñu si entreprise bi ñiy liggéey Dakar dem dikk ku si am combat mu may la congé nga dem préparer sa combat boo paree nga dellu siwaat kon du ma def lu dul sant ko di sant sama chef Ndeene Laman Diop Assane Mohamed di sant waa dakaar dem dikk bi yëpp di sant Rick surtout Rick sonn na si combat bi loolu ak sama doom day Cheikh Diouf waaw. combat bi ñëw yaak euh, majji majji nga def open press wax sànni ko. moom mu def open press wax sànni leen yéen ñaar ku nekk sànni sa morom yéen ñaar tey kan moo jiitu ci làmb ji. waaw man maa ko njëkk maa ko jiitu nag si làmb ji man maa ko fa jiitu parce que man 16 heures et quelque 16 heures et 16 heures daal fekk na ma si làmb ji teel na ñëw de wax dëgg yàlla waaw teel naa ñëw préparé. dugg see gis màjj màjj dugg si lan nga yëg. non amoon ngëm-ngëm rek xam nga ñun euh, yàlla lañ yaakaar ak yeneen bi ak suñuy waajur. amoon ngëm-ngëm ne rek ak li toppoon suñu ginnaaw ki si mel ni ñoom Papis seen booy dañoo fu ne dugg nañ fa si àll bi Calcio euh, jóge ba Gambie ndax man comprendre nga sonn si combat bi Cheikh Diouf carré comprendre nga dugg fu ne sama nijaay yi ngay gis ñii samay nijaay lañ rakku maire bi lañ combat bee tax ñu jóge Kër masaar ba fii ñëw ñëw ànd ak xama rek ñu ñu war a àndal ànd seeg samay mbokk ak waa parcelle ñëpp ca sama ginnaaw waa faj waa waa sant naa leen si bu baax booy feeraa yi booy jàkkaarloo booy ñoom baylaat kaañ baylaat njaay fële ñoom baylaat kaañ gars yi combat bi si man combat bi mën naa ne sax dajuma si dara entraînement rek laa si daj. seetlu ci combat bi tey Angleterre li nga indi ci arsenalu mystique dafa bari trop. pourtant demewul noon sax de gars yi ñooy wax noonu rek si soo sama biteel ñett biteel la woon biteel yi bëriwuñu woon mais xama rek dañoo liggéey liggéey nañ si combat bi nag peut-être suñu borom moo ñëw ak ndam rek moo tax ñu am ndam ñu si sant yàlla bu baax a baax a baax di sant ñuy jàppale ñoom ku si mel ne Ameth Ndiaye monsieur le monsieur le maire Khalifa Gueye Boga Ndiaye Itali Thierno Thierno Sila comprendre nga Lamine Ndiaye Itali Ousmane Ndiaye Baylaat Ndiaye. ci sant bi arbitre bi woo leen ci digg géew bi. sifflé Angleterre majj majj Angleterre féete ñu ndijoor majj majj siita ñu càmmoñ mun nga maa wax combat bi noo ko bëree. waaw combat bi yàgg na. waaw yàgg na xam nag combat bi mënoon na bañ a moom boo taxawoon parce que lu boo xoolee lu si bëri maay dox si koom maay dox si koom parce que maa ngi doon wax arbitre bi sax nekkoon ne wax ko mu taxaw parce que li muy arrière noonu kon booy avertir moom nga war a avertir waroo ma avertir mais arbitre ñaan ñëpp la mais nag consigne laa parce que sama course carré moo ma ne direekul xaar ko kii kii ñaaray am boo ko dëbbee sol jël la boo leen xeexee mun nga xo wàccee. par yàlla dogal nag ñu xeex moom jël na ko waa jël na ko yéene wu ma ko sax yéene wu ma ko woon dóor mu daanu mais loolu la yàlla dogal. dinaa ñëw ci dóor mu daanu mais man pour man Madji Madji ni mu déroulé combat bi baax na ci moom avantage am la parce que buy bëree poids lourd bu mel ni yow faw muy déplacé wu di mën di léetoo di déplacé wu di la jam di arrière mais moment boobu énervé wu nga bëgg nga koo jàpp mënoo koo jàpp moment boobu est-ce xam nga ni Madji Madji bu téewoon tuuti mën ngaa ñàkk sa non ah en tout cas prévoir nañ lépp prévoir woon nañ lépp prévoir nañ xeex bi prévoir nañu bëre bi bi moom prévoir woon nañ xeex bi tam prévoir woon nañ ko maanaam làmb ji bàyyi ñu si woon dara dara dara dara lépp lañ prévoir parce que sama course carré mayu woon dara daf ma daan fekk géej contact bu subaa mu woo ma terrain Cambérène contact maanaam lu ne daal def nañ jàng nañ si xeex nag tamit waxoon naa la jàng naa si xeex bu metti gis jàng naa si xeex dama si fay xaalis bu bëri jàng si xeex mu jaral ma combat bi moom daf maa jaraloon moo tax nag suñu borom ñëw ak ndogalam rek ñu siy dolli sant yàlla bu baax mënu ko nag parce moom it nit ku baax la te suma xaritu rakk la quoi sama rakk da daan nekk seen kër ba daan jàngee kon yéene ko woon loolu quoi mais tamit loolu la yàlla dogal si sant yàlla rek. dóor bi da ngeen a wéccante kuu yéen ñaar kuu yi bi nga ko dóor ban nga sentir ne dal na ko ba mu kaaw. non dama ko dóor naa parce que ñaari dam ba ma ko ba ma doxee si koom gëdd ko noonu moom daf ma dóor nag moom dóor na ma kuu bu dal waaw bu dal waaw léegi nag ba mu dóoree ma ma forcé dox si koom mu arrière ma doxaat si koom mu riposté for freiné fu dajeeg samay kuu waaw yàlla dogal mu daanu waaw bi nga ko dóoree mu daanu jékki-jékki naa gis la nga tourné wan ko ginnaaw dem lëngu ko lan nga ko doon wax waaw boo gisee ma lëngu ko moom daf ma xam xam suñu waa kër parce que saa ñu dajee may laaj maire bi quoi kon xam na maire bi quoi te sama rakk lan moo ngi Paris quoi xaritam la lan bu daan jàngi bu wàccee seen kër la daan nekk ba ngoon jot mu gontaat bu wàccee doog a ñibbisi parce que Guédiawaye ak Parcelles da doon xaw a sori quoi te daan def parfois 15 heures bu amee heure mu ñëw ko ñoom màjje waaw loolu xama rek moo tax yéene wu xoon loolu quoi kon daanaka kon suma ku daan jàppale sa rakk seen sa di ñëw seen kër kooku du sa du sa ennemi quoi kooku waaw kooku du sa ennemi làmb rek moo ñu boole woon waaw maa ngi koy ñaanal nag bu amaatee beneen combat yàlla may ko si ndam. loo ko waxoon bi waaw dama ko ne maa dama ko baalu àq nag dama ko baalu àq parce que nee naa ko yéene wu ma la woon lii quoi mais suñu borom ak dogalam maa la maa ngi lay jégalu bu wër nga baal ma àq parce que sama rak defal ngeen ko lu ne seen kër kon bu demee nii rek du ma neex quoi mais dañu sant yàlla xam ne yàlla moo dogal moo yor dogalam di ko dogal. mu comprendre ko ni làmb la quoi làmb la après yéen ñaar ay famille ngeen te bool da ngeen di booloo doon benn. waaw moom de ndeysaan sax moom lu si bëri buñ dajee moom daf may laaj suma rakk bi kon daanaka kon man man man man de jàppee ma ko kii parce que damaa xam ne làmb la rek comme day ndaw may daw ñuy ut si rek di xamal làmb mooy suñu sport te moom lañ bëgg comprendre nga kon man jàppee ma ko ennemi dama ko jàpp sama mbook quoi. parce que li mu defal sama rak rek daanaka mënuñu koo mënuñu koo fay loolu quoi waaw mënuñu ko fay. bëri nga ak daan ko da génn waalo wala da duggaat biir waalo. <laughs> ak ah. ñun xam moom comme dañ nekk si làmb di liggéey di entraîné te ñun moom euh, maanaam dañ fi nekk pour pour pour xama rek kuñ ñu jox daal ñu bëri moom. ñun amuñu problème boobu noonu day taamu nii moom wax dëgg yàlla moom parce que tamit koy taamu day fekk yow nga ëppalee ko dara wala nga mun. taamu de dama ne la ba xam dangay génn waalo wala da ngay duggaat biir waalo. ah buñ ma fa joxaatoon keneen de ma jël wax dëgg yàlla. Euh, géej waay laa ko teg nag. géej waay waaw géej waay waaw. daa am lu mu fa bëgg géejawaay daa mel ni yaa ngi doog a seen mbër de. waaw wax dëgg yàlla maa ngi doog a seen mbër. am ci ndam ne daa neex da nga fay delluwaat. non du question neex sax mais damaa bëgg a bëreeg ñoom rek parce que damaa xam ne ay champion fa ne. kan nga jàpp ne sa naataango la géejawaay ñett mbër yoo xam ne buñ la indiloon sa avance léegi nga jël waaw bëggoon naa Alioune Seye 2 de parce que Alioune Seye 2 gis naa ni mu ni mu ko taxawoo ni mu ko jàppalee. ah mais loolu du si dara man ma le robot de parcelle le bulldozer de parcelle bâtiment de parcelle man la. ah waaye yow. dañuy ñun korso kii di nga am carré dina nekk sa wet ngay nelaw ñun man aw ma woon nelaw man boo ma xoolee sax xam ne sama kanam gi gisoonu mu nooxee gëj naa nelaw de. damay bañ bu ko gisee du ne non anglais yabu ma jiili moo ma yab parce que anglais bu ñu wéetoon maak moom ci digg géew rek. Ah. su ma ne ko dëppal mu dëpp. <laughs> yow mos ngaa gis ñu ortal ma ma arrière wala kii nii. Ah, xaw ma de Alioune Seye man de wax dëgg yàlla ñu ma ñu ma fi bëreel ñëpp damay taxaw xeex ak ñoom suul samay tànk bu ñu reculé wul du ma reculé maay ñëw chaque jour maay ñëw. waaw Alioune Seye de kay man bu ñëwoon fu mu toll nii dama koy dama koy këlamtikoo rek jox ko sériteem rek parce que sérité fi ne bëri waaw waaw bëri nañ bëri nañ. budul Alioune Seye 2 kan nga yaakaar ni war na ko. budul Alioune Seye 2 pour Guédiawaye. pour Guédiawaye pour Guédiawaye ah mais les 2 que bëgg bëggul bu ma jox ko si de. waaw man les 2 jàpp Garga Mbossé mi la indi tey daan ko nga naan les 2 eh, eh. fu mujjee. fu la ci làmb a eh, garab si kaw lay fekkante déglu rek. bëre Garga Mbossé champion la garab si kaw lay fekkante. yow pour yow yéeg nga daal. ah tamit ah làmb looloo fi ne de. da daanu dellu si ginnaaw eh. daan dem loolu dong moo fi ne. waaw. ah dañuy dañ. coach mu ngi ne Marley. coach bi moo ko wax mais Marley moom xam naa boole woo ko say mbir. xalaatoo koo jël. coach da nga bëgg waaw na ñëw. man maay la bâtiment de parcelle. mais da nga waxoon loo yan da nga waxoon da yóbbu siin mais daal non non non non du ma ko yóbbu foofu parce que suma nit la quoi. mu ko yóbbee siin siin dafa garaaw période bi siin xama rek mooy loolu waaw. bàyyil mu bàyyi ko fii. ah li nga ci def ci mystique moom yegg na 2 millions wala mu mu mag <laughs> man kay li li li ma def si làmb yëpp si nit ñi la jógee si gars yi nii waa Feeraay waa Jaakarloo ñam xalifa Gueye monsieur le maire Ahmed Ndiaye ñoo ma jox xaalis rek te daanaka mun naa ne. Euh, lamb ji bougé wu ma centimètre ñoom ñooy dem si àll bi di ñëw ñoom kalso gars yi xam nga ñoom Cheikh Diouf ñoo ma ne bul dem fenn parce que boo demee pour voyage dem si àll bi da ay fatiguement la lay jural quoi parce que mënoo di préparer di dem toogal maa ngi gërëm waa Tivaouane bu baax surtout waa Tivaouane jàpp nañ sax di gërëm maam lamp di ma gërëm gërëm maam Gunda gis naa seen taxawaay si combat bi. lamb ji ñaata nga ci def ci lamb ji ah def nañ si daal daal. fu suñ doole yam daal à peu près à ñaata nga ci def ci de bu déggee ay millions day kii de. paa bi génn mooy bañ paa waaw day génn waaw daf koy attaqué waaw. jege na un sax. wala mat na ko. ah def nañ ci xaalis moom. wax dëgg yàlla def def nañ ci xaalis te tëdd nelaw quoi waaw. def nañ ci xaalis de waaw yii gisoo état bu ñu waroon indi sax indiwuñu ko. kon indiwoo état non non boo indee état yàlla bu ma fekk làmb jamono. na ma fekk foofu nañu maigrir dañoo kii dañ doon woor parce que li doon régime dañ doon def benn jour repas par benn fan benn jour waaw. Mm-hmm. Hmm. mais maa ngi gërëm ñoom Oussou Bébé nag booy yooyu ñoom Papa Ndiago. Mm-hmm. booy Feeraay ñoom ci noo sama fis mm-hmm. ñooñu samay doom lañ du ñu samay kii quoi ñooñu wax dëgg yàlla guddi gi daawuñu nelaw sama rak Ibu di gërëm sama ah, rak Ali Ali kar quoi waaw parce que naa seen taxawaay. waaw gis naa ñu lay jëfal xanaa ñu bàyyi la nga tàggoo rek ci tàggoo bu dul tàqali ko mais noo gisee wasaare làmb ci làmb nga daal ñu fekk la. yéen koy bàyyi yéen yéenay VIP VIP des VIP mooy yéen. amoo leen moroom si site bi. dañ leen di ñaanal yàlla defal leen ngeen am télé rek. waaw am télé ni ñëpp. di suus ni ñëpp. waaw parce que mérito ngeen ko te seen liggéey rafet na quoi. seen liggéey rafet na lool yàlla na leen yàlla fay parce que tamit li ngeen def nii. maanaam nice daal yàlla nag yàlla yokk xewal gi daal si barke Yonent bi waaw maa ngi sant waa Casamance nag. Casamance waaw Casamance waaw. dem nga fépp Bunkiling Tirakunda Sandiñeeri. fi nga yóbbu Bambali Bambali. Kata Makuli Banta. maa ngi sant ñëpp di sant ñëpp tund Casamance bi yëpp. maa ngi sant sama ñaari nijaay yeg sama beneen nijaay bi ñetti nijaay yi Ousseynou ak Assane ñii samay nijaay lañ parce que suba ba léegi ñoo ngi fi ndeysaan te Kër Massar lañ war a ñibbi waaw maa ngi leen sant bu baax a baax baax baax. daa mel ne bi ñu i ñëw nañ. ñii ñoom ñoom daal ñoo géré affaire yi daal ñoo géré woon affaire yëpp ñoom ñoo ko géré woon man sonn ma si ñoom ñoo def lépp maa ngi leen sant bu baax di sant Moussa Téer Moussa Téer tamit combat bi Ousmane Ngom maa ngi koy sant bu baax parce que ñoom it sonn nañ ci daal fu ne dugg nañ ci. waaw Garga Mbossé maa ngi koy sant bu baax a baax Daouda Camara Rick Rick waaw sant naa ñëpp waa di ñaanal Franc ak yàlla may ko ndam suba si kàttanu yàlla papa. Saalum la am tudd yow. Barxam. Barxam sant. kuy sa papa. kuy sa yaay. foo dëkk. mbëgg yi waa ndugg bi mbëgg yi marché Gueule Tapée tey ay saaku lañ fi indi man dama mujj sax triste koi parce que liñ fi indi daanaka mën naa ne est ce newul lu ñu waroon lal sax moom lañ indi. Mm, kon indi luñ fi indi dafa bëri Ibra maa ngi koy sant Ibra Cheikh bi. maa ngi leen sant bu baax di sant waa parcelle nag waaye surtout waa unité 3 parce que gis naa seen mobilisation ak seen ñaan yeeg yooyu yëpp gis naa ko daal sant naa ñëpp sant naa ñëpp. waaw sant naa ñëpp bàyyi laat kanji ñëpp laa sant Mbaye Cissé maa ngi sant Issa Diop Thierno Silla mu fi jóge sànq sant naa ñëpp daal waaw bàyyuma kenn asalaam jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan wasaare làmb Angleterre la woon bu dóor dóoraan noonu lañ leen di tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ne moo du tàqaliko ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu làmb jaa ngeen jëf